kon nga xam ni tey jii bi mu jëlee quartier bi commencé koo séddale amu ci ma sàmba nag ak ma demba kenn ku ci ne boo taxawee jekk pour man faa def dara boo ñëwee si at mu ne nañ ko daggal nañ ko jox mhm. mais li ci gën a yéeme mooy comme li sëñ bi wax ni mu sekk wax léegi réserve yi ñu am boo waroon Touba ba mu daj amul fenn fu ci am réserve mhm. mais li ci gën a yéeme waat mooy suñu aatu séddale na quartier bi ba mu jeex moom amu ci parcelle mhm. waaw loolu du moo ci gën a doy mais li ci gën a yéeme moom amu ci amu ci borne vingt mètres wutu ko ci wutu ko ak njabootam wutul ko wutul ko ak njabootam ndax ndax ndax ndax fii fii mu dëkkee da koo jënd daa génn jënd da koo jënd da koo jënd cash mhm. tabax ko te tey jii bari na ñoo xam ne bu ñu leen joxoon lii bala ñoo def dara dañuy dagg seenu pencum bopp mhm. def si seen daa seen kërug bopp ak mhm. seenu njaboot suñ aatu xalaatul loolu mhm. dongoy sëñ Tuubaa yi la ko jox